mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax mbokki Leewtoo TV mbokki internet yi mbokki làmb ñu ngi fii tey ci Ngor li fi xew mooy jàmm rek la xam ngeen ne làmb ji ak nu mu demee booy bawol am combat bu rëy bu koy xaar diggante mag ki nga xam ne moom mooy Marley tey ñu ñëw fii ci Ngor jëli si li nga xam ne moom mooy open press am yàgg maar ak ki moom mooy Momo Mané Mansour équipe yëpp ñu ngi leen di nuyu yàgg bu ñu toppante ñëw mi ci kam xoolal mbooloo mi ngay gis yëpp waa Ngor la nga xool ci kaw gars yi ni ñu mel ba ci kaw ñu ngi taxaw ci kaw terrasse yi nga xam ne lii yëpp booy bawol la ko waral xoolal ma xale yi xoolal ci kaw lii yëpp waa Ngor lañu ñi ñëpp dañoo ñëw supporter ji nga xam ne moom mooy booy bawol ci open press am bi kon jouru làmb ja dana am nu mu demee Siteu ngi fi ki nga xam ne moom mooy tafaleer mu ngi fi Zallo mu ngi fi Issa di niyaay booy bawol moom tam mu ngi fi kon nu mënuñoo lim ñëpp waaye li wóor mooy ngor yëpp jóg na ànd ak waa Bawol ñëw war a jàppale booy Bawol ci bés boobu kon yàgg dañuy toppalante ba ci biir xool na booy Bawol def boo ko defee ñu ànd ak amateur yi daal tey nga ñëw jàppale si Boy muy def open press am ñu xam la yàgg na lool waaye tey boo ñëwee jàppale sa lan nga mën a wax li nga xam ne ñoom ñooy mbokk internet ak famille lamb waaw d'abord ma maa lay nuyu di la fay Boy Baol dafa nekk sama fils xëy na li tax ñu dama nekkoon ci beneen écrit mu nekk ci beneen écrit alors ma dem ba bàyyi bëre mu am combat ñëw seet si ma damay sawar pour ñëw jàppale ko parce que dama gis ci moom loo xam ne lu ko manqué tuuti quoi parce que bëgg naa ñett ci mbër yi te am na ko mooy am na fit buy bëre esprit tranquille lay bëre te mën na bëre am na ay faay yu muy def yu ndaw rek dañuy ñëw pour corriger ko rectifier ko pour mu compléter li mu mën quoi voilà ñoo bokk benn dëkk man ak moom ah. même pas deux kilomètres différence bi fi ñu dëkk noonu donc ki kon mbokk damay ñëw jàppale ko te déppi koor ga guddi gi man moom ñu ngi liggéey bon li ma ko sant ak mbër bi muy bëreel li ma ko wax pour mu def ko su ko defee yàlla mën nañu dimbali may ñu ndam quoi. Hmm. ñu xam ko ci mën a bëre lool. trop Marley mbër mu mën a bëre la dafa complet mën na xeex mën na bëre mais tamit koo gis rek am na point feebal quoi. voilà loolu nag jàngat nañ ko xool nañ ko dañu jéem a jaar foofu rek pour am dara. est-ce que du li nga perte ci moom nga bëgg mu am. waaw waaw bëgg naa mu amee ko ñoom ñëpp a xale bawol yëpp parce que kii a fekk moom sax day gën a dalal sama xel muy Ibou Diop. parce que man ñoom ñoo nekkandoo woon ci lamba ji bokk nekk équipe nationale xamante nañ bu baax mu mën bëre trop. ñaar bokk ngeen équipe nationale. si Ibou Diop bokkoon nañ nekk équipe nationale mën na bëre trop xam naa ko bu baax a baax a baax a baax donc euh, dama ñëw rek pour dolli leen rek quoi parce que lu ñu jàngandoo ñun ñaar ñoo ko jàngal. li nga xam ne xaw na ko fàtt laay wax du mën a xamu ko parce que moom xam naa ko bu baax quoi li muy li muy fàtt rek laay ñëw di. mooy Baol mbaa du def excès de confiance. non no non non non non lamba amul loolu lamba amul maala man amul excès de confiance. dèjà mooy li ma la wax ne erreur yi muy def la ñu ñëw rectifier si. <laughs> waaw mais yow lu la indi fi ah xanaa ñëw seetaan samay doom yi rek waaw di leen ñaanal yàlla rek lu ñu sumb lu ne yan nañ ko daan li yàlla may leen si dam lu seen dëgguy te mu doon seen jiglaay di leen ñaanal na xale yu baax lañ ñoom ñëpp samay doom lañ dëkk ndax sama doom a ngi sa biir ñoom ñëpp samay samay doom lañ mais ñaan dëkk bi na ngor ñoom ñëpp ñu jàppal yu mbër yi ndax xale yu am jom lañ bu ñëwee ci open press nu muy demee lu gën nan lay demee yaayu mbër dama bëgg ndax ni ma jàkkaarloo samay doom yi ñuy bàkku ni may tàccu damay bëgg waaye lii lépp nag ndam la rek laa soxla ndam li rek yàlla may leen ndam booy bawal mii yàlla may ka ndam lu sedd guy moo sutta mi xam ne ñooy bëre yàlla may leen ndam lu sedd guy keneen ku ñëwaat tamit di bëre yàlla may la ndam rek man daan dama bëgg rek yàlla di leen may ndam may leen jàmm may leen salaam may leen ak wér ndax xale yaru lañ xale yu bëgg seen waajur lañ xale yu fokk seen waajur kon dama leen a ñaan fi mu dama ànd ak mbégte ndax li waaye mbég bi balaa gën a may ma ndam ndax ndam li bañ ko amee rek mu ma man maa ko am. jour combat bi di nga seetaan lamb bi. waaw ah bañ commencé rek damaa daw taxaw si biti ba ma dégg na daan nañ ma doog a ñëw xool seetaan ndax manuma leen a xool nii nii nii ñu la bëre ba commencé rek daw bañ pare ma doog a ñëw. Omar yaa ci gis kii yaayu mbër kii mooy yaayu mbër waa nga am tey open press nga war a bëre ki nga xam ne moom mooy Marley sa mbokk yëpp ñëw taxaw waaw dama naan ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent di sant sama ñaari waajur bu baax di santaat ko santaat bu baax a baax sant bawol bawol yëpp di sant waa Ngor ndax nga woote ñëpp ñëw mbëri bawol yëpp ñëw mbëri Ngor yëpp ñëw loolu dafa neex xam nga loolu daal am naa si mbégte bu baax a baax waaw di leen nuyuwaat nag yéen ñëpp ñu gis ne Zalo dafa ñëw jàppale la ci combat loolu lan moo ko waral waaw sama nijaay la hmm. sama nijaay la ñun bëri bawali bawal yëpp ni ma ko waxee woon ci ndogu bi ñun ñoo ko war a teg loxo hmm. xam nga ñëw di jàppale ndax li nekk si bopp bi xam-xam hmm. kenn xamul ni mu toll comprendre moom Père Ibou Diop suñu entraîneur xam nga Euh, bëgg ndam nag moo tax ñu woo ñëpp pour ñu ñëw jàpp si mhm. képp kuy bawal bawal mu jàpp képp kuy lébu mu jàpp si mhm. waaw comme suñu père Zallo dañ koy jaajëfal bu mhm. baax a baax ndax dafa dag ay yitteem ngir man man mu xeebu mii xam nga dama koy gën a santaat baax di santaat waa réew maawa Tafaleer bokk bawol yow nga bokk olympique de Ngor bokk leen écurie waaye bokk dëkk mu ñëw jàppale si la waaw Tafaleer bu ko defee da ko war a def ndax bu xewlee maa fay njëkk ba si ñoom kooñaan yi ñoom caw estar ñoom booy bawal sama turandoo bi gars yi fi nekk yëpp waa mbëri yoof yi ñëpp a ñëw mbëri yoof wakaam bawal bawal yëpp xam nga ñëpp a ñëw daal du Tapha Leer rek Tapha Leer lu mu def da ko war a def xam nga man bi ma amee open press ñëpp laa ko wax ku ñëwul nag damay xam ne mooy loolu da am xam naa benn empêchement bu ndaw mais yoon yemul si benn ñu ne euh, lamb walu teen la ku ñëw ci fi mu fi ngay yem. ah léegi yow ngay bëreeg marle. tafaaleer du fa dugg. zaaloo du fa dugg sita du fa dugg kenn du fa dug ku dul yow ak moom. yàgg na maa bëre ñëpp ñëw si pindu teen bi taxaw man ma dugg doon baag bi dugg si biir. Hmm. ko ba tanga ndox génnewaat kon loolu jaaxaluma comprendre hmm. doole bi lii dafa neex nga hmm. woote ñëpp ñëw man billaahi bu ma demoon ba kenn toppatuma ma bàyyi làmb ma demoon ba kenn toppatuma damay bàyyi làmb dem defi leneen mm. mais ndeg saa bu wootee ñëpp ñëw mm. kon damay damay santaal yàlla bu baax sa adversaire loo koy wax sama daal euh, ma ngi ratatati rek site internet yi ma ngi ko topp xam muy wax rek mais nag jour ba mm. a ah, ma ne pare naa bu yeboon nag mu gën a pare waaw loolu laa koy ñaan daal mu gën a pare moom dafay xeex di bëre <laughs> te gaaw loolu teg ci waa gaaw na man xool ma xool ma instant yi ni ma mel. bëre bu gaaw laa bëgg instant yi si combat bi. fu yem neex. bu laajee xeex ñu xeex. bu laajee bëre ñu bëre bu laajee mystique ñu mystique na nañu suñu mbokk yëpp. waaw rawatina waa Njaan fi ma juddoo. ñëpp ñëw na. di préparé nee nañ ma sax ay kaar day jógee foofu. mais sëñ Fallou. waaw. boo nee waa Njaan dafa mel ni yow da nga misé ci mystique alors que sa adversaire ci liñ ko xamee ci bëre lañ ko gën a xamee. Euh, làmb lépp ngay andi guerre boo dem sa arme yëpp loo bàyyi boo demee ci biir làmb ji mu war na ko comprendre comme ni ma wooyee njaan ni laa wooyee reefan réew maawo Touba Kër Sambakan Mbaba Garaas bawal gi yëpp ak lébu yi Ngor Wakaam Yoof ak fukki penc ak ñaar yi ñu gën a jàppale seen doom ndax fi ma nekk nii du sama place mu ko war a romb defet moo taxoon ma taxawaat fii mais incha allah dama war a romb foofu di dem booy bawal ndax mën nañoo séntu beneen booy bawal ndax contre ama neex da nga ko minimiser ñëw xeexoo bëre woo daanu kenn comprendre lul booy bawal combat boobu dafa may jàngal si combat bii lu bëri comprendre maag ama neex jaay na ma xelu mag xam nga jaay na ma daanu xeexu ma bërewu ma mais insa allah lool ma jaay woon dóor ay coups yoo xam ne teguma ko fenn mu sàcc ma daan ma mbëkk ma daan ma mais loolu passé nañ ko li suñ kanam la ñuy xool. sama dernière question mooy ndax mën nañoo xaaraat beneen booy bawol bu Auge ba doon bëreeg Bouba Fit ba doon bëreeg ñàkk jariñu booy bawol boobu anamu ndax kii muy bëreel dafa nekk koo xamante ni dafa gaaw te dafa mën a liir combat ndax mën ñoo xaaraat booy bawol bu Auge boobu noonu. combat bi moo xamal la ñaar vitamine sax naanu ma ko si entraîné mu metti ndax dañu gis ne da nga wàññi poids ci sama xalaat. loolu loolu nga gis nag loolu la ñëpp gis. so incha allah loolu laa liggéey maa ngi ama neex 117 kilos laa indi su ma neexoon jël 120 kilos ci combat bi mais bëgguma ko naturel boo xoolee sama yaram bi nii nga xam ne naturel laa liggéey li ma war a def yëpp maa ngi koy def instant yi ba leneen ñëw. Bokar Bokar mais Boy Bawal ñu gis xeex boo xamante ne ci booy Bawal ñu xool sa 2-2 am combat yoo xamante ne bu ñu seetaanee Boy Bawal dañuy gis ne dañ ciy xeex xeex bu métti ndax xeex boobu ñu ne mën nañu ko xaar ci combat bi. waaw amateurs yi koo tàmmal. xeex bu metti bëre daan ñibbi bëre bu doon simple kese dañuy dem adresse Senghor duñ sax bëre aaree ndax jaar nañ ko nag mais bëre dóor lañ wax mais sa adversaire di bërekat ñëpp jox ko favori bi si bëri bi kon ndax boo concentré woo ci xeex boobu noonu nga tàmmal amateur yi ndax booy bawul du juum non da ngaa juum bu dee bëre bi man maa ko ëpp bu dee xadar bi maa ko ëpp waaye yàlla daal moo nu yàlla nu kàttanal ñu daan ko ndax mën ngaa mën nit sax nga ñëw xam nga yàlla àndut ak yow mais yàlla na jour boobu yàlla ànd ak daan ko ndax instant yi sax wax waruñu boo gisee site internet yu bëri bëgg nañ maa jël billaahi ma bañ ne leen combat bi wax waruma si xam lan moo si war jëf ndax samay supporters instant yi daa am lu may xaare ndam rek lan may xaare ndam rek te yàlla na ma ko yàlla may képp kuy téye kurus ñaanal ma muy wali ñëpp waaw nu mu tooti sëñ Abdou Karim Mbacke maa ngi koy wax mu yokkal ma ñaan soxna may laxat sëñ Abib Mbacke sama sëriñ xam nga mu yokkal ma ñaan sërif yi nekk ngor yëpp ña ma may ñaanal yi waaw sama mama aji bugguma waaw lépp daal man daal pare naa instant yi. mais li ma manqué woon corrigé na ma lu bëri mais bulam lam laa koy wax kenn du dem guerre di joxe say suma dañoo gis bii mooy cinquième su loolu waxu mbër loolu waxu mbër la. mbër moom foo ko dekkee micro xamal lu mu la njëkk a wax. bu xeexee ma duma ko ba leneen di am mais yàlla nu yàlla suturaal daal. dañoo gis dañoo gis yéen ñaar ngeen bokk benn adversaire muy trompeur yéen ñaar ñëpp ngeen bëre kii daan kii kii daan kii ndax booy bawal foofu noonu dina fi manque repère wala dina ci def attention ci booy bawal ni mu bëree ak trompeur ak marle ni mu bëree ak trompeur. trompeur dafa daan marle man ma daan trompeur mais loolu du daraay làmb man mbër mbër daan na ma ma jël ki ko daan ma daan ko. Pambaye ngi nii dama ko jàpp daan ko ñax jariñoo ngi moo fi daan kan góofit ma daan ko Pambaye ngi nii moo fi daan jéem ma daan ko lamb loolu du dara mbër mën naa daan euh, fukki mbër mën na koo daan mu ñëw daan kooku comprendre loolu du dara si lamb parel daal man naaguwuma benn côté benn question laa dese ku ne Marley 2 xam ko ca mbooloo ma xam ko ca coow la bu jógee géejawaay gépp topp ko na muy def stade Iba Mar amateur yëpp seedeel nañ ko ko booy fan la toll ci mobilisation ngor fekk rek xajul stade Iba Mar ngor rek laa la wax ni takkatuma bawol bawol yi ñëw daje fa ak ñoom si stade bi man nee naa ko stade bi bu bu saaganul rek bu ay supporter ndékkiwul foofu du fa am sax benn kaar incha allah dinaa ko noyé. danoo gis bi géejawaay marle laay bëreel démb remise drapeau bi damaa dégg Bamba Fall mu ne yéen ñaar ku daan mois de septembre da lay tëggaat combat bi nga ko waxee damaa gis nga rey lu bi nga waxee damaa tàccu man confiance laay demee saa su ne ba keroog safaan di am lool laa gëm de wax dëgg yàlla loolu laa gëm yàlla na ma yàlla kàttanal jour ba ndax man ñi ma war a àndal ñi koy dox essence yi pour ma daan ko bëri na hmm? Mara Kane petit production mi sama mama aji buguma hmm. papa Matar Nguer papa Ndiabe bu Ngor hmm. waa Ngor yëpp ña ngi may ñaanal waa Bawal sama yaay dem naa fa da yokkal ñaan yi ñëpp comprendre kon amatuma lu may xelaat ndeg jàppale bi mat na waa États-Unis ñoom Seexuna ñoom Mohamed gars yi fa nekk yëpp ñoom Jibi ñoom Babacar ngir yàlla lii gënal lan ma ko ndax danoo son si combat bi. ndéeg nee na man ragal laa. doo gis ko da ngay nee na ragal laa man yaakaar naa loolu boo defoon micro trottoir nan na Marley mooy ragal bi ndax moom combat bi da ciy ab fit quoi. wooteel. daa abu fit pour nga bëgg ab fit. ndax euh, combat bi man dama xamul Marley lan la li bay taltale lu ne mu di wax naan ay ragal ngaak lu ne musi dugg mar la xame wuñu ko woon lool xam luñ ko xamee woon guul ah. yaakaaroon fii Camara nga mujj li nga koy mujjee wax dara ngeen kaddu bi ci li ma koy mujjee wax bala maa wax lool si tamit da siy bëre si ta bu ngor day bëre si journée bi comprendre bi mooy premier combat daana bëre fi ay mbapat hmm. ah. moom itam ma ngi def mobilisation ak euh, ay fantam man itam maa ngi def sama mobilisation danoo bëgg stade bi ah da nga koo a feesal daal Bamba ko démb bi moom wax dëgg yàlla xajul woon Iba Mar